ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara démb bi ma yëkkati jataay bi ci ubbiteel école bi ak gunge enseignants yi ak gunge parent yeeg élèves yeeg étudiants yi maa ngi tolloon ci sallallahu alayhi wa yàlla nga koy jàngal te teg ko ci programme waaw yàlla nga koy jàngal te teg ko ci programme ndax programme daa am solo te sunu borom da cee war a bokk waaw moo tax sunu borom bële ca jam ñaajo te première dame soxna Marème doon ko ubbi doon ko ubbi ñun a ca def suñuy ñaan ba nu ba nu ba nu ba te bëgg ñu baree bari roy ci waaw ñu bare bari roy ci ndax àdduna mën ngaa ñàkk am xaalis waaye am ngay pexe am ngay pexe de te pénc bi loolu la koy doxal waaw ndax yonent bi dafa ne man raa minkum munkaran dafa am ñett yu mu fa fal yuxayyir bi yadihi am na ko ko mën de fa in lam fa bi lisaani am na ko ca toll fa in lam am na ko ca toll bi ñu amee kon daara joo xam ne mën naa dajale ay gone yu jigéen yu mokkal alxuraan def concours dugg fa def ci da ne ca collège ba ah loolu di ëpp naa xeeb waaw collège franco arabe ëpp naa xeeb de tubarkalla kon dama bëgg wax rek ne am njàng de am programme ñiñ bëgg jàng lii lañ leen bëgg def fii leen bëgg jëmee ak sunu borom loolu la defal yonent bi alayhi salaatu salaam iqra mu ne ko mu ne ko bismi rabbika naa ci bokk ndax su ma ci bokkut moo joxu ma ko te moo joxul ma wengal gaal gi waaw te sunu borom bu wengalee gaal gi moom <laughs> waxuma la bari dañ këpp waaye ñëpp ay këpp waaw yàlla bu mu ko wengal kay mbokk yi bi yàlla waxee sallallahu alayhi wa loolu ne ko naa ci bokk ne ko naa ci bokk ba wax ko wala al axiratu xayrun laka min al ba wax ko wala sawfa yutika rabbuka fa tarda njàng ma dafa àgg lim war a jàng lépp ci joxoñam sunu borom mooy gis nga jàng suñu cheikh nee na jeexal téere yi allahu akbar suñu cheikh nee jàng tekkiwul jeexal téere yi Hmm? mu ne ko mukk jeexal téere yëpp mu ne ah mu ne te te diggoo ca dara waaw mu ne <laughs> dégg li nga jàng daa gën jeexal téere yi allahu akbar waaw waaw mu ngoog kon bi yonent bi bi ko yàlla ne iqra ba àggal loolu mu àggal rek mi ngi koy wan ne ko li nga jàng fi nekk bu fi yemoon it neex moo tax ba mu ñëwee ca kër ga mu jàngal ko meneel njàng mu bokkut ak lim ko doon jàngal ca daara ja ndax ci daara ji muy da muy xaaru xiraa ñi fa demagul yàlla nañ fa dem ñi demoon yàlla nañ dellu ca daara ja daf koo jàngal ba jàngal ko war a bukkal ak këram allasi allama bil qalam alamal insaana maalam yàlla mu jóge fa ñibbi ñibbi si ci kër gi ndeysaan fekk fa yaayu daara waaw soxna njinde <laughs> nekk leen yaayu daara yéen ñëpp ndax suñu yaay yaayu daara la woon te bu amoon ku soxlawut yaayu daara kon moom lay doon waaw waxoon naa ko soxna ami ndeysaan mu xëm <laughs> moom tam ci ñuy xam léegi la bokk xaw ma nu mu demee noonu xaw ma dañu wàllaate xam gi waaw yonent bi dafa jóge ca ca daara ja agsi ci kër gi ñaq na liw na waaw mi ngi lox ndax li ko dikkal tey musu ko dikkal te bett na ko te yaakaaru ko woon waaw mu ñëw ci kër gi fekk su nay Xadija en tant que yaayu daara waaw mu tax su ma siinee kuy wax ci daara lu baaxul ba duma reer balaa muy gën a njàng mooy ma ma siin jigéen ji wax ci daara moom duma duma ci boole duma nelaw daara gis naa ay nit ñi bu ñuy wax ci dara dañuy woo ko ko waaye bu ñu wax ci daara ku ñu for ci mbedd mi wax loola du noonu gis nga daara fi ne Abdoul Aziz Touré mëla ca Fass Touré Serigne Makhtar Naar loo mëla ca Kokki Cheikh Ibrahima Khalil loo mëla ca Ngaabu ak ak ak ak ak Adja Binta Thiaw mii ci Padoa gii ak Rabi Assise ak ñoom bëri na soxna maam jaara ñag ak ñu mel ni ñoom doo leen gis ci télé yi doo leen gis ci journaux yi nekkuñ ci réseaux sociaux yi te ñooñu ci ñoom lañu war a dellu laaj leen mbirum daara ñoom ay yaayi daara lañu plus seen yaayi daara jafa nekk ñoom soxna Anna merci soxna Anna et félicitations et du courage encore <laughs> waaw waaw yonent bi dafa fekk ci kër ga yaayu daara njàngale mi ko sunu borom jàngal ca daara ja bukkut ak njàng mi mu ko jàngal ci kër gi mbokk yi lu am solo ngi nii ñaari façon jàngale fee daf ne ko iqra bismi rabbika allasi xalaq xalaqa insaana min alaq iqra wa rabbuka al akram allasi allama bil qalam allama al insaana ma lam yaalam ne ko mën ngaa dem ñibbi <laughs> ne ko mën ngaa dem ñibbi bi wàcce ci daara daal di ñibbisi akub liwam akub liwam waaw ndeysaan akub coonoom waaw akub xiifam ak mar mu ñëw ci kër gi fekk fi yaay daara allahu akbar mu tax am na suñu <laughs> suñu benn jigéen bi kolle waaw aminte jóob <laughs> waa ndari ñoo koy wax kolle kole daal saa boo ko siinee muy waxu naa yem foofu sax léegi te moom tam mu xam te ma nga bitim réew te boo fa xamee duñ duñ comprendre luñ <laughs> waaye kole félicitation yàlla xam na ko nekk leen yaay daara yéen ñëpp ngeen déglu Xadija keroog Xadija yonent bi dafa agsi mooy boroom këram nag yonent bi boroom këram Xadijaay aawam teg aawo ga fële teg yooya fële nekk yaayu daaraam ndax dafa soxla tey yaayu daara ndekete nun jàngalekat yi nun jàngkat yi donga daara yi élèves yi étudiants yi ñëpp soxla yaayu daara laaj ko waa ndar laaj ko waa ndar dëkk bii ñu tuddee Ndar Saint-Louis dëkk ñoom soxna Soda Soda Soda Diouf waaye waaye Ndar waay Ndar ci dëkk yi ëpp ay dongo ci lañu bokk waaye dëkk yi gën a néew ñu yalwaan ci mbedd yi ci lañ bokk waaw ndax boroom kër bu ne ca ca Ndar magi Ndar ñi jàngal nañ la yaayu daara defe na dégg ngeen yaayu doxandéem moom dafa weesu yaayu daara dem ba yaayu doxandéem kuy doxandéem mooy sa yaay waaw mère Sarr Allahu akbar moo tax ndar ñu wutoon système xale yi di wàcc midi yaay yi di taaj añ midi sa Ahmed Dame Ndiaye wax na keroog ca Ashura ba midi keng bool keng amoon na lu daan wax ca RTS ndeysaan ñu ko tuddee Salimto waaw xaw mi ngi am ba léegi mu déet ndeysaan waaye gëj naa ko dégg Salimtu mi ne la adaayi turan ak xasida la ma kon xale bi na enseignant na enseignant bi yëg loolu na ko yaayam yëg na ko professeur bi yëg lu nu yëg mooy njàng mi ci daara ji ak njàng mi ci kër gi kere bi alayhi salaatu salaam agsi ci kër gi fekk fa yaayu daara yaayu daara ji summi mbubbum sa soxna laa summi mbubbum madame laa summi mbubbum nawle laa mbubb yooyu yëpp mu summi ko sol mbubbum yaayu daara donga bi agsi sallallahu alayhi wa bi agsi daal di sone ñu ubbil ko ma agsi rek daal ni zammiloo di sàng ma dama liw yaay daara ji ne ko ah dangaa liw mu ne waaw mu ne ko lu xew ci ton bu ton bu ton éducateur ton yarkat waaye lu xew moo boobul ku yar du def noonu dafa am ton yarkat ak ton wu xulookat waaw <laughs> léeg-léeg nit wax la mu léeg-léeg nga wax nit mu tontu la du xàmmee tontu yarkat ak tontu xulookat léeg-léeg mu am ci débat yi mhm. léeg-léeg mu am ci wax sa xalaat waaw nga posé nit question mu war laa tontu tontu jàngalekat mu tontu la tontu xulookat waaye yonent bi mu agsee yaayu daara ja tontu ko tontu jàngalekat au lieu mu tontu ko tontu xulookat waaw question yi nekk question jàngalekat mu tax ku la dàq laaj ci wàllu jàng moo la dàq jàngale waaw monsieur le maire Guédiawaye Cheikh Sarr nu ko yàlla yokk wér ñoo daaj tase conseil économique mu ne ma waaw man dama benn question bu ma laaj ma ne ko waaw <laughs> mu ne ma ban ban école la Mbàkke si la jóge ma ne ko mi ngi jóge ci école bu tudd alxasas mu ne ah bon xanaa foofu ña fay ma seer na la ma ne ko non gratuite la c'est <laughs> waxtaanu mag moom Cheikh Sarr yàlla na ko yàlla yokk wér waaye question ak réponse question yu xuloo ak réponse yu xuloo baaxul ci pénc suñu yaakaar ja laaj ko mu ne ko damaa jommi <laughs> yonent bi tontu ko damaa jommi damaa gis lu ma jommal tey ma ne étudiant yeeg eh, donga daara yeeg ñëpp ku jóge sa daara boo ñibbisee da nga nettali waaw da nga nettali benn nga necc li lu rafet te neex baa nga necc li yeneen waaw moo tax daara it daara soo ñëwee ci daara wéet ak sa doom di ko laaj defaral too daara waaw dafam question yoo xam ne question yi defar la ak question yi yàq boo ñëwee ci daara fekk sa doom di jàng yi nga koy laaj na jëm ci njàng mi mais boo ko laajee ci social daara ji tàmbalee yàqu social mooy lan waaw nu ngeen di lekke waaw ndax loxo ngeen di jël ndax bool bi dana bari aw nit ndax ndax ndax ndax yow dong yaay bokk lal kan nga bokk lal question yooyu du question sociale day yàq question yi mooy question jàng yéen a ngi jàng man saar nga toll ku lay jàngal am jox ko téeméer bii point moo tax noonu jàng nañ daara ba waaj ba ba jóge ca daara ji ndeysaan baay mbay benn yoon la fa mës a ñëw waaw bàyyi sunu papa benn yoon la fa mës ñëw jàng nañ daara ba jóge ca daara ji maag bàll benn yoon la fa mbay mës a ñëw bi muy ñëw ca daara ji maa ngi toll wal mursalaati <laughs> waaw maa ngi toll wal mursalaati xam naa dina daal mës a firil wal mursalaati waaw waaw suñ dajee maag Iran Ndaw ndeysaan sunu tafsir yi ma nga tàmbalee naasi maa nga tàmbalee bàqar defe naa ca bu toll woon mësalaati soriwu fa ma toll man xujuraati mësalaati xujuraati waxoon naa leen yàgg na fa lool ma yàgg fii lool waaye incha allah sa yaati yawm sa yaati yawm mustarchidoona Moustapha Sy moo Serigne moo koy wax sa yaati yawm <laughs> si tit tit jàngile ko boobu yal na ko yàlla sàmm sa yaati yawm mane ne bi agsi ci kër gi wax naa la dundam gi yépp am njàng la doxalinam am njàng la mu ne soxna si yaayu daara ji suñu yaay Xadija zàmmiloo ni sàng leen ma mu ne ko lu xew mu ne ko dama liw waaw dama liw foo jëlee liw bi mu ne ko dama jommi ndeysaan soxna si yemale fa question yi yemale fa question ya daal di jóg taxaw taxawaayu yaaye daara taxawaayu yaayu daara xaw ma nag ecole am na yaayu daara am déet est-ce que moom sax soxla na ko ginnaaw moom defal nañ ko lépp waaw waaye daal njàngum yonent bi ni mu jëriñee daara noonu la jëriñee école ndax barabu jàngukaay la soxna si ne ko yow doo jommi doo jommi siéttt mu ne ah mu ne ko mukk lii war a jommale lii war a jommale mooy jinne hmm. mun ne ko te yow yaa mën jinne yow doo moroomum jinne sox mi ci balaa ko barke ji mi ci ñaani Haydara Karaara doo moroomum jinne bu <laughs> tax jigéen ñi jàng loolu it danañ mën a def loolu alxuraan woon ne woon li taskunu ilayha ceewaa ji li doo mën a moom jinne yaa mën jinne foofu te te sa jëf yu rafet yi ngay jëf doo dox ba mu yàgg rek yàlla xëy yàqu ko mukk maanut ak yàlla weesu na foofu loolu la ko yaayu daara ja wax ne ko mosoo yor sorgo bu xiif waxuma laa jabar mosoo yor sorgo bu rafle waxuma laa jabar soo gëdd kenn doo yuuxu kenn koo xam ay soxlaam sol nga daal ànd ak moom ba soxla sa faju ku mel nii ku mel nii du xëy benn bis mukk yàlla xëpp suuf ci li muy def du ko def yunit bi defarwaat ne ko ah kon kay jommi moom ne ko jommi woo toogal daal di koy wutal lu mu lekk ndeysaan li daara soxla daal di koy wutal lekk li daara soxla moo tax keroog nañ ma baal ci misaal mi ba bi soxna tabara ñëwee sunu daara léegi mu ngi tudd soxna tabara njaay waaw waxuma du ma wax tur bi nag ndax de bañ ko wax tur bi waaye soxna tabara njaay la tudd xëy <coughs> ba mu ñëwee ca daara ja <coughs> daara am na ko fi ñëw fam ñaar ñoo xam ne saa bu ñëwee daara ji rek ngeen baal ma sax ci njàngale mi waaye saa bu ñëwee daara ji rek daara ji yëg ko waaw bëgguñu ñu wax tur bi nag waaye irandaw nee na nañ ko wax ci suuf ñoom bu ñu ñëwee daara rek daara yëg ko Adja Seynabou mii ci asalam Marème Faye Sall mii ci palais ak Tabara Ndiaye mii waaw ñi ñi daal bu ñëwee daara rek tubaarkàlla daal ngeen baal ma ci misaal meeg njàngale mi ndax da koo da koo jar li ma ci bëgg rek mooy bëgg yéen ñëpp ngeen nekk yaayu daara waaw di def ci daara yi ndax bés a ngi ñëw ngeen soxla ko bu leen wàccilee kaamil ak bu ñu ko wàccileewul ngeen jot ci la jàngale mbokk yi daara am na solo lool école am na solo lool école ubbi na daara ubbi na doom nga yeeg élèves yi ñépp nga wuti seen barabu jàngukaay bëgg faa roote dara indi seen kër waaye la gën ci lañ fay roote rek mooy makaarimul axlaax mooy jikko yu rafet bind bi jeexut dañoo ak suñ ko war yëkkatee ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñoo nekk nii taxaw yor seen bëgg la na firiñ fàncal xibaar toi firiñ fàncal lu ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yi seet 3 s ak ndoxum waalu mi ak ñi ànd ak ñoom yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa